mbokki téléspectateurs yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ñaanal jàmm di ko sàkku si yéen tey ñu ngi mardi 18 mai 2021 sunu làmb balaa ñu caa dem li ñuy def muy nuyu leen ziar leen wala balaa ñoo dem ci revue des titres bi ñaanal leen jàmm sàkku ko ci yéen leen balaax bu baax a baax si weeru koor bi nu jóge ak korite gi di wax ne depuis lu mat semaine a ngi nii bés bu dellu si ah, bi gisu ngeen ko ñu siy jégalu nag bon Korité bi ñëwoon dëgmal ñu nekkoon ci voyage dem dëkk baa yooyu jaafal bàyyil loolu moo tax mais li ñuy def mooy rek ñaanal leen jàmm sax ko seen bàyyi leen ngeen dem déglu li nga xam ne ni moom moo tukkee ci yëglekaay yi muy sunu lamb ak record. asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah. mardi 18 mai 2021 dañuy ñëw ak yéen ci yëglekaay suñu lamb la ñuy xëy doore ko. yëglikaay bi di sunu làmb nag tey xëtam mu njëkk moom fa mu fi këm ca xëy fesal kenn la maanaam Balla gay numéro 2 daal la xëy tey wan ñu ko ci xëtam mu njëkk Balla nag yëglikaay bi jàpp ne ne daal soo xoolee lu ëpp ñetti téeméeri million daal fi mu nekk nii si ñetti combat yoo xam ne daal ña ak ay contrat yoo xam ne deux contrats sponsoring la daal Balla fi mu nekk nii dugal na ko ci poosam mel ni kii nag Balla Gaye 2 bu roi des arènes amee moom ci wàllum sport business fi mu nekk nii sunu làmb daa jàpp ne daal Balla fi mu nekk nii daal loo ci mën a dégg moo ci buur ba wala boog moo ciy boos ba sunu làmb moo xëy ñëw tey wax nu ko keneen koo xam ne mook Balla mas nañoo laale ci làmb muy tafaatin yëglikaay bi xëy na tey ñëw ci moom ak digganteem ak waa Pikine yëglikaay bi na boo xoolee daal maanaam moom tafaatin dugg ya mu dugg Pikine boo ci boolee Boy Niang toll na ci juróomi dugg yoo xam ne dugg na ko Pikine waaye boo xoolee daal ah ba fii nu koy wax nii maanaam amagul ca lenn lu dul benn defet maanaam boo xoolee duggam bu njëkk digganteem ak Malaw Seras booy sëy ceg ñi ñëpp ku ci ne tafaatin dalaa daan waaye ka ko freiné biir Pikine nag du kenn ko dul amaabal Baldé loolu yëglikaay ba moo xëy tey ñëw wax nu ko mu amoon le 10 mai 2015 yëglikaay bi na nag ñu ngi yónni yàgg xool digganteem mag booy Niang fi mu nekk nii fan la ñuy jëm wala fu ñuy mujje ndax mooy juróomeeli mbër boo xam ne ca biir Pikine tafaatin lekk na la nga xam ne nii moom moo di avance am sunu làmb xëy ñëw tey dinu wax lu mel ne ki noonu kenn koo xam ne nii moom lekk na avance maanaam muy Franc diggante ma ka nga xam ne moom moo de Tyson 2 yëglikaay bi ñëw na ci Franc ak la nga xam ne nii daal moom la nekkee fan yi di imposer ay luwaam ak la ko neex ci làmbi simple ji yëglikaay bi ne bërki démb ca Fatick daal soo bëggee dégg-dëgg Franc moo fa doon teg ndawal ndax nag lañ fa tegoon de 3 millions te jamaykee defoon ko drapeau monsieur le ministre Matar Ba yëglikaay bi nee na Franc daal moo fa imposer ay luwaam jël xaalis ba dal di ko indi Ndakaaru sunu làmb xëy mel ne ki noonu ba tey beneen galaa boo xam ne ci mbuur la amoon ka fa wane boppam tamit du kenn ku dul libidoor ba nga xam ne moo dëkk ci kayaar moom daal moo fa égrasé ka nga xam ne nii moom moo di maalang saane sunu làmb ba tey moo xëy ñëw tey dinu ko wax wala boog maalang ñas lafa fa daan beneen saane saane boo xam ne nii moom du saane lan koy wax di doomi joof yoor yëgli kaay ne ne moom tamit day soo bëggee dégg-dëgg ca gàgge sërif la quinze mais bii nu génne daal oto yañ fa tegoon moom moo ko gañe de maanaam daal moo gàddu oto ba dawal ko yóbbu joof yor digganteem ak général Malika ñoom ñaar ñoo fa final woon mel ni kon daal fi mu nekk nii lambi simple ji moom takkar naase na ba yegg ci lool keneen koo xam ne nii tamit lu ñu tegoon fa nga xam ni mu doon lul seeseen mu teg ci loxo du kenn ko dul Ibou njaay óbbali yëg li kaay bi ne daal soo bëggee dégg-dëgg kere ci poids lourd daal maanam fukk ak juróom-ñett ñoom ñoom bindu woon waaye maanaam daal ba nu finaaloo daal moom moo finaalu gàddu xaalis ba léger ya tamit toll woon na ci juróom fukki léger ak ñaar maanaam cinquante de léger waaye ka nga xam ne nii daal moom moo di ka nga xam ne nii moom moo di Moussa Wade moom moo fa daan Mamadou Sarr te finalu léger ba yëglikaay bi tey ñëw na ba tey ci lambi simple jooj de mu ngi cay gën a xuus keneen koo xam ne ni tamit maanaam ginnaaw ba mu demee ñaning yëngal ko ba mu yëngutu lañ fa tegoon muy 3 millions mu jël ko muy Serigne Ndiaye numéro 2 yëglikaay bi di suñu lamb mu ngi nuy xamal ca biir ne nu de yemu fa de dafa takkaat ay bagaasam dellu si Ndakaaru te fa nga xam ne ni moo doon terrain gaal gi lañ fa tegoon daal yëg ne Serigne Ndiaye numéro 2 moom moo ca teg loxo yëglikaay moo tax mu jàpp ne daal ah bu bëggee dégg-dégg daal Serigne Ndiaye numéro de daal maanaam weekend bii moom ab weekendam la boo xam ne daal bu neexoon lool lool lool ci moom yëglikaay bi moo xëy ñëw wax nu ko lambi simple jooja dañ cay continuer ak drapeau soldat bi nga xam ne fi mu nekk ni daal ah ñu ngi ca calendrier national ba nga xam ne daal moo jëm ci wàllum sélection yi yëglikaay bi ne soo bëggee dëgg-dëgg daal maanaam ci mardi ji ña nga xam ne nii ñoom ñoo di Dakar daal ñoom ñoo fas yéene préparé wu yeneen raison yi nag fii bu le 23 mais daal ñu ngi leen di xaar mel ni ki fi mu nekk nii kon soo bëggee dëgg-dëgg ñu ngi koy waajal ngir nag fas yéene jubali fa nga xam ne ni moo di ca Kaolack loolu nag li ko waral wala li ko indi mooy drapeau chef de l'état boo xam ne daal bu ñu yeboo waajal ko yëg li kay ba moo xëy ñëw tey wax nu lu mel ni ki noonu keneen koo xam ne nii moom maanaam bu doon da doon waajal waaj ma mujj na ca yegg muy Fatma Dia Fatma Dia daal yëglikaay bi ne na ka nekkoon fa nga xam ne nii moom moo doon ca xaas TV nag jóge na fa dem na fa nga xam ne nii moom moo di ca Kewel Info ba nga xam ne ka ko jiite du kenn ku dul promoteur bu làmb bi nga xam ne moom moo di Fallou Ndiaye mi nga xam ne nii moom mooy tëgg ay làmb léegi daal am na reporter bu bees bu nuy wax Fatma Dia yëglikaay ba moom moo xëy ca tuus ya wax nu lu mel ni ke noonu leneen loo xam ne ni yëglikaay bi wala beneen yëglikaay boo xam ne fa la nuy dem muy record ak drapeau Sénégal ba nga xam ne fi mu nekk nii daal ñu ngi koy waajal mel ni ki nag région de Fatick fi mu nekk nii daal ah regroupement daal ci semaine bi moom lañu ñu programme fas yéenee def ba tax na sax seenu équipe daa mel ni génne nañ ko ñoom waa Fatick seen 120 kilo du kenn ku dul général Malika moom région de Fatick daal la bokk fa la bindu maanaam bokk mooy défendre couleur ba ca cent vingt kilo yi kenn koo xam ne ca cent kilo yi doomu Fatick la bokk ca ba wala boog moo leen di défendre moom moo di ka nga xam ne mooy moom moo di moom Mamadou fay ordinateur moom mooy bindu ca cent kilos yi quatre-vingt-six kilos yi Abou Assef daal la na kay wax soixante-seize kilos yi Ngor Ñaax la soixante-six kilos Abdou Mbaye yëglikaay bi ne daal loolu mooy la nga xam ne ni moom la waa Fatick daal di def mel ni kon fi mu nekk nii daal soo bëggee dégg-dégg moom drapeau de l'État ba sàjj na yëngu na te gaaya nag ñu ngay waajal bu baax a baax a baax a baax ba tey ci drapeau de l'État booba soo bëggee dégg-dégg daal région da Dakar moom fi mu nekk nii la nu def nu làmb la fa nañ fekkaat jooja wax maanaam daal Ibrahima Mbaye ma nga xam ne moom moo nekkoon seen entraîneur yëglikaay bi ne day écarté nañ ko de génn nañ ko ca fi mu nekk nii bokkatu ca léegi nag ka ne di ko commandé du kenn ko dul ko nga xam ne nii moom moo di njuga ja ma nga xam ne bokk na ca ñay encadré Modou la ca Rock Énergie yëglekaay ba moo xëy ñëw dinu wax lu mel ni ki doon keneen koo xam ne parcelle googu la dëkk te bokk ca équipe de Dakar ba ñu boole ko ca du kenn ko dul koo xam ne nii moom moo de maam lees moom daal la ñu indi mu nekk renfort fas yéenee jàppale gaaya waaye keneen koo xam ne ni moom fa la ko gaaya fekk muy Omes Diagne ba tey moom daal moom moo continuer di nekk directeur technique régionalu Dakar mel ni kon daal Gomis soo bëggee dégg dëgg moom drapeau de ba fi mu nekk nii dana yëngu te itam nar naa neex waaye ñi nga xam ne nii moom danoo neexle ba sunu làmb def leen ca ginnaaw yëglikaay ba moo def Franc Serigne Ndiaye numéro 2 Doudou Sané Lébédor yëglikaay ba mu xëy tey ñëw dikkal ñu ci lu mel ne ki noonu. jërëjëf Gomis jërëjëf téléspectateurs yi kon loolu moo tukkee woon ci yëglikaay yi ah muy li ñu fi indi tey ci seen ay xët. ci ay bind ñuy nuyu waa sunu làmb group ba yépp ñu ngi leen di nuyu rawatina suñu kilifa yi nekk fa muy Iba Kane Abdoulaye Dembélé ñoom ñëpp ah su ma limee dinaa juum parce que ñooñu suñu ay mag lañ ci liggéey bi du mën a ñàkk ñu di leen ziar te saa yu ñu xëyee ñu ngi gëstu ay xibaar yu am solo di ko indil waa làmb di ko del amateur yi pour dara bañ leen ump defe naa loolu am na solo te yàgg nañ ci ko def boobu ba tey bàyyiwuñu kon mention spéciale à ñooñ nga xam ne ñoom ñooy groupe boobu nekk fa nga xam ne nii moom moo di Afrique comme defe naa la groupe bi tudd maa ngi leen ñëpp ñuy waa sunu lamba stade la ko wër waaye tamit di nuyu waa record bu ma nee record nag moom mooy groupe Futur Média ku ne xam na ne ci record foofu la fàqe ko ñu ci nuyu suñu grand Abou Ndour mi nga xam ne lépp luy làmb ci wàllu yëglikaay boobu ci groupe euh, Futur Média ci wàllum record bokk ci journal bi presse écrite moo ko fay doxal Abou Ndour moom tamit nekkoon koo xam ne ancien suñu làmb la yàlla def bu mu fa jógee la dem record di indi moom tamit chaque jour rek mu ngi indi ay xibaar yu am am solo si làmb kon ñooñu du mën a ñàkk ñu di leen nuyu di leen ziar parce que euh, ki lay indil xibaar si làmb fa muy jaar ba jëli ko des fois day nekk lu méttee métti mais dina fexe ba indi ko parce que li ko jara ko jar ñi ko jar nag mooy askan wi ñi ko jar mooy amateuru làmb yi ñi ko jar mooy ñiy dund làmb te bëgg ko di xaar ay xibaar te xëy na am na ci ñoo xam ne ñoom amuñu possibilité dem fépp wala ñu mën di seetaan lépp kon defe naa mbind mi day am solo lu si mënta doon hmm, bu dee sunu làmb la nag tey xëtam mu njëkk gis ngeen li ngeen gis ni Balla gay numéro 2 ak costume am ak mu def ni ñaari baaraamam waaw di reetaan mel ni kon Balla fi mu nekk nii daa mel ni daal fa mu wokk xesen na wala fañ ko wokkal xesen na loolu te neex parce que nag yëglikaay bi nee na ñetti téeméeri millions yu tegal plus de trois cent millions pour trois combats deux contrats sponsoring Balla Gaye 2 fi mu nekk nii teg na ci loxo macha allah yëglikaay bi moom mooy fi mu nekk nii le nouveau boss du sport business. ah loolu nag li ñu ci wax mooy que ni rek sport moom yaakaar naa ne ak lu mën a xew business da cee am parce que business bi mooy képp kuy def sport wala lépp lu waaye di liggéey sax am na business parce que kenn du xëy di uti dara. te doo ca soxla loo ca jëli pour mu mën la yor dul dundal la métier sax ki kay jàng daa bëgg métier bi su mokkee mu di ci am xaalis kon àddina lépp business la l'essentiel que teg ca yoon rek da cay am solo bala nag fi mu nekk nii defe naa ne ah tey bu signé lu mel nii si làmba xaalis boobu comme ni ko yëg li kay waxee ak tamit ay contrat sponsoring yu toll si ñaar loolu moom li ñu mën mooy loolu moo lay wan ne kon staff baax na waaye tamit balaa li yëpp di mën a am il fallait que nga liggéey ko lii doo tëdd rek di ko di nelaw ñu jox la ko de déedéet jaar na fu méttee méttee méttee métti ñu fay ko ay tiibil lu ne def na ko pour mu nekk mbër bëree ci mbappat yi lu ne daj na ko pour yegg si tey ci niveau bi mu yegg si defe naa 2005 bi muy dugg si ci làmb ah ñi amoon gis-gisu làmb te nekk ay borom xelaat kat xam lan mooy mbër gisoon nañ ci moom sirru boo xam ne jàpp nañ ne kii ëllëg bu fonkee boppam am ñu ko jàppale dina nekk un grand champion defe naa lool tey yàlla dogal na le prouvé na ko ñu ñëw tey nag ba fi mu xam ne fii la toll ñu nekk ci atum 2021 tey mu am ku mel ne Aziz Ndiaye ak ñeneen ñeneen ñoo xam ne ñoo ko wër encadré ko di ko teg ci aw yoon ba tey yaakaar naa mu nga INSEP di waajal ñetti kombaam kon Balla defe naa ne loolu daal ah lii moom li ci nekk rek mooy ku mu mën a doon ku ne li ëpp soññale ci nga liggéey waaye bul yaakaar ne Balla Gaye 2 wala Modou Lo mbaa Eumeu Sène wala Tapha nag kum ci mën a doon ci ñoom les grands champions Lac de rek ak ñoom ñëpp ñëpp ba ñu ci seen ay rakk ñoom Ama ak ñoom Boy Niang ñoom Sa Thiès ak ñoom ñëpp ba ci ñoom Yékini Junior amu ci koo xam ne da ngaa xëy rek ay millions wuyu si la de déedéet non non dañ koo ñàkkante ñafe ko ba tey ñu toll fi ñu toll kon looy def rek am ca fulla te itam boole ci ak muñ ku muñ muñ olof a ko wax kon Balla lool la ñu likaay bi xëy wax ci moom koo xam ne Balla ak moom bëri nañu Balla daan ko muy tafaatin yëglikaay bi ñëw na ci moom par rapport ak duggam yi mu def Pikine boo xoolee bii mooy cinquième contrat biir Pikine digganteem ak Boy Niang ñeent yam nga xam ne jot na ko faa bëreegu maanaam am na ci ñetti ndam ndax daan na fa Malaw Seras daan fa booy Sey daan fa Cek Ama Baldé daan ko le 10 mai 2015 kooku ko fa stoppé moo ko fa freiné taxawul terewul duggaat na fa bi mu duggaatee itam beneen xale la jël boo xam ne naataango Ama la ñu tolloo jamono bokk lu ñuy rek di même génération muy booy Niang ñu war a bari waa Leewtoo tëgg ko kon ah ñu yónni yàgg ba xam ndax moom cinquième combat boobu ak waa Pikine fu ca tafaa di mu jaay xam naa daal combat la ba tey euh, lambi simple ji itam fi mu nekk nii jax na ndax nag boo xoolee drapeau Matar ba ca Fatick Franc la mu fa def Libidor la mu def Mbour la Serigne Ndiaye def fa nga xam ne nii moom moo di ñanin euh, ñëw def ko Dakar bari ki dem Doudou Sane la mu def gàgge sërif mel ni kon xale yooyu tamit vraiment ci lutte simple bi ba ci óbbali la mu def fa nga xam ne moo di lul seeseen ñoom itam moo lay wan ne lutte simple fi mu nekk nii sàjje na ndax boo bëggee dégg dëgg gomis maanaam bi ñu korotee ah mercredi ba set di vendredi wala sax jour korité la affaire yi démarré ba dimanche li ñu teg ci ay millions ci làmb bëri na bari na trop trop trop ay millions yu baree baree bare ay oto sax teg nañ ko dut saa ne oto yi ne woon gàgg Serigne moo ko gagné Serigne Ndiaye gagné fa nga xam ne ni moom moo doon ñaniñ ñu ne déet na waaye mu jóge ci ñëw dakaar gañe Adrien Senghor Franc gagné Joal ñu ne déet na waaye mu ñëw wàcc si Fatick gañe ko Ibou Ndiaye Obali gagné lul CSN ah Libidor gagné Mbour kon loolu moo lay wan ne gars yi vraiment ñu ngi doxal bu baax a baax a baax a baax a mu nekk nii drapeau chef de l'État tamit ba tey buñ ci dikkee ak ka nga xam ne nii moom moo di région de Dakar wala boog calendrier sélection yi fi mu nekk nii daal mel ni région de Dakar ñu ngi pour pour ce mardi waaw les régions yi des ñu ngi leen di xaar ba le 3 ba le 23 mai xam naa lu ci wàllum regroupement yi ak joxe seen ay liste équipe yu mel ni ki noonu wala yu mel ni yooyu daal xam naa ne ci la ñu wan ñu bira seen tey ci drapeau chef de l'État boobu ku ne xam ñu mujj jongante ah muy 2019 parce que daaw amu ko ndax coronavirus bi 2019 bi mu mujjee am région dakaar Dakar moo ko gagné woon muy lu njëkkoon ci moom Ibrahima moo ne woon ba nekkoon ca kaw ren nag yàlla dogal na région de Dakar a ngi waajalaat waaye Ibrahima Mbaye moom nga xam ne moo ko gagné woon àndoon ak ñoom Omes ak ñooñu moom Ibrahima mbay nag gars yi wàcce nañ ko léegi nag jiiteetul équipe ba équipe ba léegi Ndiouga Dia moo ko jiite njuga ja nag suñ ko waxee suñu xel lay dem ci Modou Lo ak ndax bokk na ci mooy Ndiouga muy Ndiouga Dia di ka nga xam ne nii moom mooy Pambay ak ñooñu ñoom ñoo encadré Modou Lo ba indi ko tey ci niveau bi mu ne ci côté entre euh, côté technique ak bëreeg yooyu kon tey moom jugajee tamit bu ñu wàccee Ibrahima Mbaye yéeg jox jox ko ah, loolu moo lay wan ne tamit affaire noonu la war di demee des fois bu kii defee lii Ibrahima Mbaye yàgg na jiite région de Dakar di ñàkkante dara possibilité di ko di ko di ko di ko të ba yàlla suturaal ko bi ñu mujj a jongante mu jël ko kon moom itam mention spéciale ki ñëw itam di njuga yàlla na yàlla def ah euh, wala boog li waa Dakar di xaar ci moom yàlla na ko am ndax man sañu maa ñaanal benn raison wala boog bu jàndee am boog sama raison laay ñaanal muy Jurbel ndax bawal bawal la te raison de Jurbel day bokk drapeau day bokk ci drapeau bi te ay champion nga fa waaye daal xam naa njuga moom la waa dakaar indi indi maam lees mu parcelle moom itam di nekk Parcelles Assainies di entraîneur foofu mu renforcer ko plus Omer Omes Diagne ma fa nekk di directeur di nekk directeur technique régionalu dakaar Dakar loolu mooy li nga xam ne ni noonu la war a doxee kon daal noonu la waaye Ibrahima Mbaye ak Ndiouga Jami itam defe naa ne ñoom ñaar ci wàllu làmb ku fàttaliku démb di nga xam ne ñoom ñoo bokk koon face nekkoon même écrit daan ànd ba tey jii defe naa itam lu ne ñu ngi koy seq ndax Ibrahima mbay njuga Ja ndem si yàlla Alassane Jaxate na ko yàlla yëram ay géej Camara ah ñoom ay ñooñu ay Sadio ñu ñoom ñëpp ay nit lañ yoo xam ne faasa leen boole woon mais làmb bu yaatoo ba yaatu loolu moo waral njuga dem parcelle bi mu fa demee nag roog énergie juddu mu bokk ci ñi koy taxawu ci côté technique ak yooyu ah fi mu nekk nii kon jox nañ ko ko Fatma ja di suñu concert di suñu rakk di suñu jigéen dem na Kewel Info loolu la ñu yëglikaay bi wax ci tuus yi loolu nag li ñu ko siy ñaanal mooy rek yàlla na fa def lu kawe njortam digganteem ak fàllu Ndiaye nga xam ne wàkkee leen fa ñoo ko doyloo ba jël ko yàlla na yàlla def mu liggéey leen fa liggéey boo xam ne bu am solo la Fatma ma koo xam ne tamit vraiment femme la xale la mais ku ñeme coono la Fatma Dia di suñu rakk ñu koy ñaanal daal yàlla na réussir kéwél Info la nga xam ne nii moom la fa wuti parce que tamit liggéey rek moo am solo waaw liggéey kese moo am solo waaw yàlla nañ yàlla xir ci ñuy liggéey tey jaamu yàlla defe naa ne ku liggéey lu mu metti metti lu mu yàgg-yàgg da nga góob la nga xam ne nii moom mooy résultat yi te résultat yi mën naa baax kon daal ñu ngi koy ñaanal loolu di ko ñaanal waa Kewel Info yépp parce que Kewel Info ka ko taxawal di Fallou Ndiaye promoteur làmb la mais mu ñun tamit yàlla dafa dogal mu nekk suñu waay te loolu fu ñu toll di ko wax ndax Fallou wax dëgg yàlla jàppante nañu te yàlla tax te loolu dafa am solo mu nekk nit koo xam ne tamit ak lu mën a xew ah benn kàddu rek ngay dégg ci moom man bokk loolu laa xam si moom di ko nuyu di nuyu kullu promoteur parce que promoteur yépp ndeysaan dañ leen di ñaanal jàmm di bëgg ñuy réussir la ñuy def parce que bu dul woon ñoom euh, làmbaay ñaaw comme ni ñu koy waxee wala boog làmb dina yéex am ndax ñoom ñooy organiser bu ñu jógee foofu muy sunu làmb record la ñuy dugg ak drapeau chef ba tey ba ma nga xam ne nii moom mooy course Fatick yëglikaay bi xëy na tey wan ñu ko mu mel ni ki nag regroupement fermé Fatick dugg ci fi mu nekk nii waaw wala boog nañ ko waa Fatick xam naa nag ñoom it comme boo xoolee at yi passé Gomis Fatick drapeau chef de l'État fu ñu ko tegaan ñoo koy gañe fu ñu ko tegaat ñoo koy gañe ba yàlla dogal nag gars yi ñëw nag di liggéey di liggéey ba wàcce leen at yi mujje nii defe naa su ma jul ñaar at ci ginnaaw dañ leen a gañe Thiès jël dakaar jël Fatick kon fi mu nekk dafa soxlawaat jël seen équipe nag mu ngi fii général Malick moom mooy seen cent 120 kilos pois bi ci gën a mag général Malick la ñu jël poids ba ca topp muy cent kilos ordinateur bu ñaaxar du Faye 86 kilos ba Abou Assef la moom tamit moom mooy 86 kilo bi 76 kilo ba ngóor ñaax la tamit ñu xam ko bu baax 66 kilo ba di ab Abdou mbay loolu mooy région de Fatick ci wàllum drapeau chef de l'état bi loolu lañ bëgg a yóbbu ren suñ record a xëy ñëw tey di ñu wax lu mel ni ki noonu mel ni kon daal loolu moo fi ñëwoon tey ci wàllum làmb ji muy nuyu sama jigéen Ami Diouf mi nga ne moom laa doon bokkal plateau bi tey yàlla dogal ñëwul ndax am ay ay quelques ñu koy ñaanal yàlla mu dellu seeg jàmm rek ndax moom moom xam nga comme li may wax rek suñu rakk la suñu sœur la te itam vraiment ku baax la Ami Diouf maa ngi nuyu di nuyu waa dëkkam waa Gandiaye yépp ah, parce que ba Gandiaye mu bëri ki dem ayaraa fa euh, maa xulle reere nañ waaw di nuyu le maire waaw waaw waaw euh, <laughs> songe ah maa ngi nuyu maa ngi nuyu bu baax a baax a baax di nuyu képp koo xam ne tamit yaa ngi ci entre Sine Saalum wala waa Sénégal yépp di nuyu waa monde bi yépp waaye di nuyu tamit suma soppe yi suma xarit yi nga xam ne aw ma leen lu dul ñoom di ci jiital nag waa group baax rawatina la président massam Massamba ji ñoom xaadim Lamine bu Eumeu Sène Issa Baye Zal bu tafaatin Eliman bu Tafatin ñoom Bas ñoom ñëpp Laay bu Faas Badara Ousmane bu xarañ ñoom tout le monde parce que ñooñu maag ñoom démb la Marème Balla Abiloum Sora Malik bu Lamsar ñooñu moom maa ngi leen di ziar di leen balu ak di wax ne ah wax dëgg yàlla. contribuer nañ ci Babacar bu baax a baax muy waa groupe baax rawatina le président Massamba Dieye maa ngi koy siyaar bu baax a baax di ko ñaanal jàmm di nuyu képp koo xam ne daal yaa ngi ñu doon suivre di nuyu groupe Equivox yépp waaye encore fois rek di ñaan jàmm Sénégal yàlla na ko fi yàlla def barke yonent bi sallallahu alayhi wax ne nag diw gi ngeen di àndal chaque jour rek ak Equivox genn diw gi la gi gën ci réew mi te baax ci réew mi mooy diw gu baax a baax a baax gi diwu or gi mooy Jador. j'adore diwlin j'adore macaroni j'adore vermicelle j'adore spaghetti j'adore couscous j'adore sax léegi sa beurre lépp am na ci j'adore kon j'adore kese j'adore rek 100 pour cent fii la dëkk doomu réew mee ko moom ba beneen yoon incha allah